ndaje sax ndaje sax ah. xale yi war nañ caa bëri mun naa am tuuti mag waaye ak yan mag waaw waaw mag yu set wicc daal yan mag euh, ndaje itam mën naa am ay mag itam mu am xale yu set wicc euh, pour mu mën a daal di équilibrer mais man ci biir waxtaan bi man dama ci ñaari mbir quoi benn bi mooy bii laa njëkkee pour nga joxe ci sa xalaat mooy bu ñuy wax naan loi d'amnistie crédit ñu yóbbu ko nangam loi d'amnistie bi tekki ñu jël période 2021 jusqu'à heure bi waxtu wi ñu nekk mhm. donc deux mille vingt et wala deux mille vingt la ca xew jëm deux mille vingt quatre bëri na ba yegg ci lool mhm. d'habitude yi ñuy coow yëpp ci la xewee. Euh, lan la dañoo bëgg a raxas ba mu set wicc soog a dem wala xam nga réew mi dafa neex yaa ko waxal sa bopp réew mi dafa neex yow yaa ko waxal non réew moom dafa neex yaa ne ndax dañoo bëgg a raxas ba mu set damay laajte moo tax ah, déet yow kay da ngaa doxee joxe réponse bi ah déet laaj parce que tamit njàccaar nga nit nga xam nga lii xew ci réew mi <coughs> mais xam nga lii c'est une farce man su ma liggéey ñuy wax nii dafa mën a teg seen plan seen plan la ñu teg di ko doxal encore une fois Macky mi ngi ci logique am plan la teg di ko doxal lijjantiwul peuple bi lijjantiwul opposition bi lijjantiwul ñiy kaas di wax moom mi ngi ci teg plan am mais dafa déjà amnistie pour kan la pour raxas ay faits. déjà on amnistie des faits. yan faits la ñu bëgg amnistie fii. amnistie wax naa la ko intervalle deux mille vingt et un jëm deux mille vingt quatre. maanaam ci gàttal daal deux mille jëm loolu moom coow li fi am ci Sénégal bëri na yow. waaw d' accord léegi ñiy jot a ci prison bi ah, kay la cent et quelques détenus lañ génne dañ leen amnistier ñoom. képp ku defoon dara ci diggante bi kay dañ leen raxas. xam nga ñoom dañ leen génne rek. ministre de de la justice Aïssata Tall Sall wax na nee na euh, liberté provisoire la ñu am. waaw ah, loolu de la liberté provisoire lu ñu am léegi ñan la ñu amnistie parce que ñi génn dañ leen jéeñoon ñenn ñi ay terroriste ak. ay ah. hmm? force occulte ak force force spéciale ak. lu ne ñu jël leen ko ak yëpp. waaw ñoom génn nañ leen léegi ñoom lan ñan la ñu bëgg amnistie. Ah, yan fee kay que yan feet la ñu bëgg xam nga tax man am na ci yu may jàpp man damay ci biir wax ji xëy na nag li ñu nekk ay communicant moo tax bu ñuy wax naan je n'ai aucun agenda personnel ah man boog jàngat gu rëy laa ciy def man Hmm. je n'ai aucun agenda wax loolu loolu avalé de. wax loolu jiite réew. waaw. amul benn agenda personnel bu may déroulé. léegi ban agenda la. ah comme si da nga am agenda day daa nekk sa xel da ngaa ya parce que kenn laaju la ko de. <laughs> absolument nga jékki rek ne man awma benn agenda personnel bu may déroulé xam nga lim ci jublu yëpp ñëpp xam nañ ko. gis nga Sénégal nañu bàyyi caaxaan encore une fois fii. Mhm. fii événement yi am mars deux mille vingt Hmm? ba deux mille vingt quatre bii. Hmm. dafa am ñoo xam dañ ci ñàkk seen bakken. Hmm. ñi ñàkk ci ay doom. ñi ñàkk ci seen i jarbaat ñi ñàkk ci seen i yaay. ay ndaw faatu ci. ñu dóor leen bal ñu dee. devant tout le monde ñëpp di ko gis. coow li ba mujjee rek quatre personnes lañ lañ ci faat. ay ndaw ndawu Sénégal. ñi ay ñi seen i yaakaar. ñoom la ñu dóor bal ñu faatu. dans des circonstances yu doy waar. am ñu ci ñàkk seen i ñii. feebar ci ba léegi ñi ñàkk ci seen liggéey ñii ñu tëj leen ci kaso am ñoo xamante ne dañ fi détourné xaal alalu réew mi mais dañu am ñuy tey woon ci Covid bi waaw. Hmm? waaw fu mujjee ana xaalis boobu. du mujj fenn ndax bu dee ci Covid. ay milliards ñu fi ji nit ay détournement ñu fi ay nit. ma ne gis nga tey jii <laughs> xam nga lu ñu bëgg yaa ngi ko wax sànq li ñu bëgg mooy sang ba mu set sang seen bopp ba bu ëllëgee cour pénal international boobu CPI bee ñu ñu war a dem. Hmm? ñu ne amnistie amnistie nañ lépp loolu mooy objectif bi. kon daal légitimer dañoo bëgg a seen bopp daal non amnistie bi est-ce que Diomaye Diomaye dafa soxla. amnistie moo tax ñu wax dialogue. Diomaye dafa soxla amnistie c'est war a génn a génn dem dem campagne. moom ba tey sax jugé wuñ. jugé wuñ ko amul benn fee bu bu dañoo njortu rek lañ teg ci ndoddam moom Diomaye. Mhm. Hmm? après ah, ñu jël set sept chefs d'inculpation ñu teg Ousmane Sonko ñu yàkkale ko ci ci ci Diomaye Mais Diomaye n'a pas besoin de l'amnistie de, de, de, de, de Macky Sall. Ousmane Sonko n'a pas besoin de l'amnistie de, de, du président Macky Sall. Prisonnier, il fa nekk yi fa nek muy euh, ñenn ñi euh nu mu sax parce que dafa def déclaration ci biir kaso bi. Euh, il est très pertinent. ban fan la bokk. Euh, ci Pastef. Fadilou Keita. non pas Fadilou Keita moom kii kii mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci kaso bi ba léegi. ba tey jii nii dañ ko jàpp. waaw mais peut-être dina ñëw dina ñëw ça va venir ñooñu fa nekk tey jii hmm? mais ñooñu dañu gëm projet Pastef ñooñu fa nekk tey jii pour ñoom li leen dugal ci ci biir kaso bi. Hmm. mooy bëgg Sénégal. Hmm. ñooñu soxlawuñu amnistie président Macky Sall. xam nga lu ñu soxla. ñu libérer leen tout simplement ñu ñibbi seen i kër. <coughs> parce que bu fekkee da ngay woote apaisement. mais et puis nañ wax amnistie bi ñan la concerné. ñan la concerné est xam bu ñu ci voté amnistie bu ëllëgee kenn du mën a topp ña rayoon xale yi xale yi doon manifester ñu rey leen lii fi yàqu ci ay dommages li mu causé ci manifestation yi bu ëllëgee maanaam liñ naan ku dee yaa perte bu ëllëgee ñooñu kenn du mën a topp ñi leen rey. Mm-hmm. fii lañ fi gis tey jii ay nit yu taxaw ci manifestation. Mm-hmm. xamoo nervi lañ xamoo mercenaire lañ xamoo ñan lañu. Mm-hmm. image yëpp France 24 sax wane na ko. ñu gis ay image nit ci taxaw di tiire à balles réelles mhm. ci ay manifestants ñuy faatu ñu gis un numéro bu taxaw nëbbul boppam waaja de man xawma kan kenn xamul moo waa ji mooy kan ba léegi amul benn enquête ci waa jooju attaquant de pointe gis nañ fi tey ji ci manifestation yàggul benn waa ju nekk PDS Thiès génn fi ay arme à di dóor masali gis nañ ko fi waaw hmm. est que procureur topp na ko dafa am loo xamante ni tey jii mënta nekk mënta nekk mënta nekk te du mës a nekk on peut pas accepter tey ji ay nit faatu ci circonstance yu doy war ñàkk seen bakken ji bi mhm. amoon ndey amoon baay doon yaakaari njaboot mhm. ah, ñen ñi ay étudiant ñenn ñi di ay sénégalais yu xamul dara bëgg rek seen réew gis na ñu ngi leen di ñu génn di manifester comme ni ñu koy defee ci réew àdduna bi yëpp ñu faat leen ñàkk seen bakken waa ana ñi ñu fi jiiñ terroriste ak force spéciale ak ak ak ak nangam sangam na ñu jiiñ leen ko mais il y a des actes qui doivent pas être impunis. Mhm. loolu dëgg la loolu tey sénégalais yi ak ku mën a falu tey jii da nga war a rendre compte munoo toog tey jii ñu rey plus de quarante plus de cinquante sénégalais depuis deux mille vingt et un à nos jours ñu bëgg toog ji bi vous votez la loi d'amnistie léegi amnistie boobu nga yaakaar ne c'est pour ñeneen ci kaso bi non man je crois pas. il faut que nos ji xam pour ñan la pour ñoom la. Hmm. amnistie bi pour ñoom la. moom moom ak ay nitam. parce que ñoom ñoom ñu bëri tey jii dafa dama lay jox exemple li ma dafa fu leer fu ko teg mm. fu leer laa ko teg fu leer keroog ci point de presse bi xaw ma euh, entretien bi dëgg dëgg yaa xam mbay wax ko ban question la ko posé laajaat ne ko est-ce que ñun mën nañ am pour ñu ànd ak yow assurance hmm. pour ëllëg boobu loolu code la comprendre nga mais loolu mooy lan ñoom ils ont ñu bëri dañoo tiit ci ñoom li tax tey jii ah ñenn ñi ñoom parti au pouvoir di dem élection kontaan pour ñu reporter élection yi kontaan tey jii pour ñu reprendre processus bi am candidat candidat bi mën nii <coughs> mais euh, fantôme mais ça veut dire que ñoom tey jii dañoo am lu leen jaaxal dañoo am lu leen tiital leen tiital mooy. bëgguñu dem élection bëgguñu dem élection ah. bëgguñu ñàkk nguur gi sans am ay garantie mais Macky Macky il veut des garanties nee na souhaité na moom organiser la présidentielle avant l'hivernage déggoo li ma la wax balaa ñu yegg si foofu da ci point bi laa la wax moom deux moom 2 avril sax lay jeexal de mu ne avant l'hivernage yegguñ ci point boobu ji bi ñu ngi ci point bi maanaam xoola garantie yi gars yi bëgg dañu bëgg ñu garantir leen ñu dem setal leen ba ñu set wecc moom laa loi bii nga xam te ne mooy loi d'amnistie bi mooy njàqare yaa yaa mbay mi question bu ñu posé mooy njaaxaare ñeen ñi ci ginnaaw mooy dañu bëgg tey jii parce que ñu bëri tey ñu bëri tey jii ils ont fait beaucoup ñu bëri tey jii insolent nguur gu am insolent hmm, ci ñu euh, embourgeoisie jaay doole ah, wax lu leen neex pasar pasare alalu réew mi lu ne nga def ko ah ay nit faatu ci ay incidents yu doy waar am Sénégal ay familles dispersées ah ay familles disloquées mais réeroo bi am Sénégal réconciliation bi war am Sénégal dañ koy teg ci dëgg mais loolu ñëpp mënul naax saay encore une fois ci ñu voté benn loi d'amnistie te gis nga lii nag mooy indi xam nga Sénégal mi ngi dugg ci guutu gu doy waar eh, jibi mhm. Sénégal euh, mi ngi dugg ci giitu gu guutu gu doy waar dama mhm. dama gént sax ñu tas conseil constitutionnel jibi sama gént bi bu ko xeeb ak dama dama gént maas gént gi moom non li ma la wax nii. kan moo waxoon démb mu ne ma journaliste kenn du ko kenn du diw diw doom ci gémmiñ bi waaye yow ne noonu laa nar a def Boubacar Camara. ji man man yow moom damay diw doom sa gémmiñ man dama gént ñu tas conseil constitutionnel te jàppal li ma la wax. Hmm. waaw bootul waa ji dana tas conseil constitutionnel dina ko tas. mu nga ci yaakaar loolu. waaw man loolu la loolu laa gis. baax na nañ ci nañ dem ba ci kanam rek. Hmm. da nga ne waxoon naa la ko de. xëy na li ci kanam raw li gët. waaw mais mais maa ngi ko doon wax sànq yow kii Mass. nee nañ organiser élection avant hivernage bu ñu demee bay xalaat hivernage déjà ñun ñu ngi jàppoon ne élection moom moom ci génneem comme que neen le 2 day avant le 2 war a sax. organiser waaw mais moom moom élection yi. hivernage tamit ñun ñun. xam mais date bi sunu data. waaw ah, ñoo ko moom. moomul date bi mais yow mais moom moomul élection yi moom warul moom ci boppam. naan non nawet laa koy kii rek non mais moomul élection yi encore une fois sénégalais yi ñoo moom élection yi sénégalais yi ñoo war a dem tey ji tànn seen njiitu réew comme ni ñu ko bëggee comme ni leen ko constitution mayee léegi c'est moom mooy taxaw di décider non naan nawet bi ndox koor gi day tombeeg lii day tombeeg laa day nangam nangam et les sénégalais dans tout ça mais moom moomul réew mi encore une fois xam nga xam nga lii mooy problème Sénégal boo waxee ñu ne la non li ngay wax nangam mais yow njiitu réew mi yow yaa dirigé Sénégal pendant douze ans baax naam baaxul li nga fi def neex na sénégalais neexul sénégalais yi. sa dem jot na mais li ñu bëgg mooy nga dem organiser élection ñi conseil conseil na retenir ñu dem participer ci élection yi loolu rek lañ ko laaj. laaju ñu njiitu réew mi leneen lu dul loolu encore une fois. mais lii mu def nii mooy jaay doole te gis nga nag. jibi mhm. jibi chrétiens yi génn nañu wax ibaadu yu wax na nag ñeneen génn wax fii Sénégal jëm neexul parce que épreuve de force bi ñuy def tey ji gis nga manifestation yi tàmbali na manifestation yi tàmbali na te gis nga ay du yam ci bopp borom aydu du yam ci bopp borom article 36 bi président di évoqué keroog article 36 boobu mënul c'est pas applicable tant que élection amul parce que dañ ne la ci article bi bu élection amee hmm, mais njiitu réew mi tey ji passation de service bi muy def ak ak ak ak ak ak ki falu bu hmm. amul mais loolu élection moo mën a am article 36 foog élection am. article 36 moom dañ ko bëgg a mboboo pour neenal yu bëri. mais mboboo pour toog ci réew mi encore une fois. te loolu du yoon te loolu mënta nekk encore une fois. article bi li mu wax te nag problème bi yëpp mooy sa dialogue la c' est pas un dialogue sincère c' est pas un man gis naa fu ko taxaw naa njiitu réew mi euh, Sénégal toogal ba mu neex la ndax fii duñ ko dénk ñu taal réew ñooy taal réew moo gis nga mooy ay mag mag yoo xamante ne xoolal mais vraiment dañu naa feq nag non ji bi lii naa feq rek laa ko mën a tuddee mënuma amul benn moo ku am yar laa mais naa feq laa ko mën a tuddee mhm. parce que nga taxaw jàkkaarloog prise njiitu mi naan ko naan ko réew mi bu ko bàyyeeg ay taalkatu réew bu ko nang kan moo taal réew lii indi am Sénégal kan moo ko indi ji bi. te moom loo mu mer tamit. li indi Sénégal am Sénégal kan moo ko indi. ndax moo jiite Sénégal lépp ngi doon dox amuñu benn jafe-jafe. administration di dox justice bi di dox kenn amul jafe-jafe ñu xëy un bon jour njiitu réew mi taxaw ne élection yi dañ koy aj man nii moom moom élection yi moom moo créé le problème ba pare ñëw ne nañ nañ régler problème bi. en tout cas les yow non defal nank dangaa jël sama portable. ñëpp ne portable bi maasa ko moom yow ñëwal tegaatal sama portable coow lu jeex. ñëpp noppal ah mais yow portable bi avant nga may sama portable nga ne non na imaamu jàkk ñi ñëw. su ñëwul du ma ko joxe. bu ñëwul du ko joxe nañ di ñëw ñu xool foog mais pour lan. y' a pas de problème au Sénégal problème bi am Sénégal moom moom mooy indi problème bi ba pare taxaw bëgg rek la problème boobu. te loolu tey jii je pense que les Sénégalais feront face. mais l'opposition ci majorité kon elle a bien fait de ne pas participer à ce dialogue. ah mais euh, opposition bi mais lu ñu dem dialogué opposition bi sax ñu dem dialogue. dialogue gis naa fa ñenn benn par benn ñu dem ñu dem ci dialogue ba. Ah, est-ce comprendre nga mais ñooñu du ñu ay opposant ñooñu yaakaar naa ne li ñu tekk ci réew mi bëriwul. te gis nga dafa daf boo gisee image da ngay am gàcce da ngay am gàcce encore une fois parce que ñi fa teew ñëpp gisoo fi benn opposant bu crédible bu fa teew ñoo fa teew. Hmm, ay mag ñoo fa teew ay kilifa kii retraité ah, ah, communicateur traditionnel rek nangam sangam ñoom ñoo fa teew ah, lu mu wax ñu ne ko gongo ah bi ibaadu bi wax sax naan dans pour ñu naan ko non bul wax bref délai mu ne bàyyi leen ma ci li ma wax rek bref délai laay wax hmm. comprendre nga maanaam ñoom seen biir ñoo fa nekkoon di waxtaanal seen bopp ñoom daal ñoom ñoo doon def organiser seen réunion bopp seen bopp lañ doon waxtaanal seen bopp lañ doon dialogal candidat bu nekkee 19 16 ne bokkuñu ñëwuñu donc boo waxtaanee ak tamit est-ce que la jëm ci élection ba dina légitime léegi dafa nànk est que waxtaan mais c'est pas le lieu de dialoguer lu ñuy dialoguer ak moom est-ce que waxtaan force la sax yow jàppal date ci fourchette u mars bi mois de mars bi organiser élection tout simplement tëddal sa néeg sax bu la neex absolument mais li ñu laaj njiitu réew mi c'est pas encore lu lu graaw méttiwul de demandé wuñ ko ligne bi mais lippa Pa Assane Seck wax démb rek baal nañ ko lépp mais dimbali ñu jàppal ñu suñu dat. mais yow yow li fi am yëpp nit ñi sëgg ko noppi ko di ko muñ parce que les sénégalais ont souffert mhm. te nag ñi ñu yaakaaroon ñu jug régler problème boobu yëguñ sax ne sénégalais ñuy souffrir sénégalais yi sonn am ay jafe-jafe ah ñi torturer ñenn ñi torture yu garaaw boo gis nga démb témo gis nga témoignage yi ñi génn kaso lañu doon wax. Mhm. mais mooy mbir mu xaw a yéeme mbir mu doy waar ji bi Sénégal yi sonn nekk ci ay jafe-jafe. Hmm. loo xamante ne tey jii nguuru sangoor mosu koo def. Hmm. nguuru ab benn nguur mosu ko def benn nguur mosu koo def. yow nga ñëw def ko jaay doole ñëpp taxaw ba pare imposer sa dialogue ba pare naan de toute façon ku ñëwul damay dialogue. mais mais ndax kon dinañ am une élection bu libre bu transparente jëmuñ ci élection. lu ah, luy loolu jëmuñ ci élection lañ lu njiitu réew lu mu wax. nee dina def élection yi avant xaw ma hivernage. nawet kañ la. Sénégal de fii. waaw dañuy wax juillet de waaye août août de la gën a jege. dégg nga ñenn ñu ne dañu organiser élection ci biir nawet boo jëlee mois d' avril. ndax juin juillet moom. boo ñëwee boo boo pas mais peut-être boo dépassé mois d' avril boo dépassé mois d' avril. Mhm. yaa ngi ci mai. waaw juin dugg nga nawet. waaw da dugg nawet juin da dugg nawet. Ah, ci booru ay sud du pays là. bu nawet bi ñëwee ñun la noonu nawet bi est-ce que mënuñ ci organiser élection mais fan nañ jëm maanaam décembre. Ndakaaru sax décembre ba mu waxoon fu bëri ci ci réew mi ba mu waxoon ca la jëm tamit ak i décembre ba mu waxoon ca la jëm léegi nag problème bi yëpp du loolu problème bi mooy dafa am ñoo xamante dañu nekk dañu nekk di business dañu nekk dañu nekk ci dil te deal bi yëpp mooy lan mooy reprendre le processus électoral ngir Karim Wade ah, mën a am na ñoo xam moom nëbbuñu ko ay candidats yu la woon ñu taxaw ne ñoom li ñu bëgg mooy defar waa PDS moom dégg nga leen ñoom seen euh, euh, leer ñoom dong de bëri na fa ñu bëgg moo ñu reprendre seen processus électoral mhm. ñu képp ku bëgg a bokk bokk vraiment aussi euh, gis nga lii xew ci réew mi ak lu mën a xew ëllëg moom mooy mooy responsable bi ak ñi mu àndal mhm. parce que aussi lii c'est trop c'est trop ah. lii c'est trop ba pare di bu ñu toogee ñenn ñi di accuser ci ci ci dialogue bi ay nit yoo xamante ne di leen wax da ngeen bëgg taal Sénégal da ngeen bëgg indi indi indi musiba ci Sénégal ak réew mi mais ñoom ñoo ñoom ñooy ñan ñoom ñooy ñan ba dañu wax ne tey ji réew mi diw